parce que wax ko déjà ne ko mandat am avril lay yem le 2 avril il ne sera plus président du Sénégal kaw vacance de pouvoir mooy ñëw vacance il sera plus président te conseil bi wax na ko pare cest dire que lii nii bu ko liiree war na ci mën a déduire lu bëri bu saisiree conseil di dégg fii dinañ toogaat fii ne la lii lañ la waxoon que ni président constaté nañ vacance am le jour parce que aujourd'hui bu démissionné woon moom mooy saisir te bu ñu eggee le deux ni Sénégal demee candidat yi déjà saisir nañ conseil buy jéggi le deux ñu aclé ñu ñu ko yóbbu si si suppléance c'est-à-dire que moom il ne sera plus président ñu pousse ko nii teg le président de l'Assemblée nationale nga xamante ne moom mooy organiser élection yi te le conseil sera là pour veiller au grain pourquoi ñu ne la sa mandat mënoo ko yokk 10 mois ngay non d'accord léegi yokkuma ko 10 mois 2 mois laa koy yokk qui te l'a donné c'est l'a cest dire que constitution yooyu kenn mënu ko def biir Sénégal c'est-à-dire que bu nekk constitution amul Sénégal nañ teg constitution kon ku nekk def la neex quoi parce que ñu ñëpp loolu moo ñu tënk te le président Macky Sall dama ne bi ñu koy waxee meilleur délai tegal ko ay cloison meilleur délai mais le 25 baaxatul mais mënoo jéggi le le le le 2 avril. candidat am nañ matière à agir mais wool candidat yi nga waxtaan ak ñoom di woo ñëpp. loolu c'est pas une pression boo xamante ne conseil constitutionnel dina ko jot conseil bi taxaw ne la sa lii nga jël sa la sa loi bi elle est anticonstitutionnelle taxaw nga rapporté décret mu ne ni nga ko rapporté baaxul pourquoi parce que fondement wu décret bi loi bi ko bi nga xam mooy soubassement yi baaxul noonu la lay dellawaatee ne la li nga def nii baaxul donc pourquoi pourquoi tout ce jeu là koo xamante ne même na pardon il a eu cinq ans xam ne en muy pouse di pousse di pousse daf lu ko neex ba xëy rapporter indi bi les gens j'ai j'ai vu l'expert Ndiaga Sylla il a proposé le 10 le 10 il avait proposé le 10 mars bi nga ko proposé diggante bi bu nekkoon moom def na ko parce que conseil bi mu jëlee décision rek moom mënoon na xëy suba sa recevoir candidat waxtaan ak ñoom rek rek fixé daf ñu avancé cest dire que au moins pour ñu bañ dund benn situation boo xamante ne situation bu bu confuse lay nekk boo xamante ne espérant conseil bi rigueur bi nga xamante ne moo lay wane ba léegi dina ko wane parce que tey buñ jéggee le deux rek suppléance moo war a am et ça c' est la constitution 40 mooy exclusion bi ak 41 di ko expliqué c' est que dafa war a joxe nguur gi ko mu génn keneen ñu organiser élection su boobaa nag. yow cas de figure boobu su boobaa moo la moo la moo la non man dama lay expliqué man sur la page Facebook bi ñu nommee Amadou Diop installé ko li ma déggee ñu ne mbokkam la tuddee na ko l' époque. bind le président Macky Sall est la sérieuse option de la démission mais démission laa waxoon à l'époque démission bind ci li mën a xew yëpp parce que daf na ay modification constitutionnelle si xam nga nit bu nekkee suppléance en période suppléance dafa am ay exclusion cest à que li nga xamante ne président bi toog bees mënu ko dafa am benn article bu mu ci rocc à l'époque mais ñu bëri gisuñu woon article 87 donc ma xam ne kii mun naa am tax mu modifier ñépp yaakaar ne modification bu Sénégal mais mu rocc si benn disposition boo xamante président bi suppléé mënatu ko kon am na leen loo xamante ne mu lay xalaat kon mën na ah, bind ki intérimaire bi mënul def révision constitutionnelle voilà léegi xamante ne moom moo a xew que loolu ça peut être une option xam nga nit moom dañ ne soo xaw ma lan sa kii sa sa déwén ñaaw quoi c'est-à-dire que président Macky Sall lépp lu ko loi may nous lépp lu ko texte may lépp lu ko loi may day jël lépp pour xeex Pastef c'est-à-dire que bu ñëwee ba fii créer loolu situation bi nga xamante ne Sénégal mosu koo dund échec la pour moom mais aussi ñun dugal nañu situation boo xam Sénégal mosu ko dund te vraiment c'est la porte ouverte à beaucoup de choses parce que ki mu fiy teg xamuñu naka lay ñëwee. mais justement ki mu fiy teg non <laughs> non non gënaluñu mais on reste légaliste bu nekk loolu la constitution wax loolu la ñuy topp. c'est-à-dire que loolu la ñuy topp et le président ki nga xamante ne moom la ñuy installé il sera il sera il sera surveillé malheureusement contexte bi ñu ak li fi xew Sénégal yëpp ba justifier ñu def ay amnistie on ne sait pas si le président Macky Sall reçoit des ou je sais pas en tout cas tout ce qui se passe en tout cas au Sénégal justifie amplement le fait que les gens soient très dubitatifs et vraiment très très vraiment très affectés aurait pu organiser les élections à muy nekk suñu président encore benn deux mois comme ça gratuitement c'est pas possible